coowal lekkub xaalis ci Covid 19 bi doxoon ci diggante Aminata Touré ak kile di Mansour Faye mi nga xamante ni moo yóbbu woon Aminata Touré ca kanamu yoon wax ni daal di ko tuumal ci ni dafa lekk xaalis ci li nga xamante ni moo jëm ci Covid 19 bi koppar ya ñu dajale woon ngir jox ko askan wi loolee waral moom Mansour Faye yóbbu woon ko ci kanamu yoon waaye ni ki tey jii yoon daal di ne joxe atteem daal di seetal kile di Mimi Touré eh, ba mu set wecci moom Mansour Faye nag ñu euh, condamné ko ci ay euh, dépenses yi nga xamante ni wax na ko euh, fay mu doonoon coow li doxoon ci seenub diggante ndax moom Mansour Faye jàpp na ni kii di Mimi Touré da ko tuumaaloon ci mbirub Covid 19 boobule niki tey ji nag tribunal bi joxe li nga xamante ni moo di atteem ci mbir moomule dal di seetal kii di Aminata Touré moom mi nga xam ni niki tey ji bi ñu ko doon atte sax teewul avocat am dal di yëkkati ay kàddu wax wax lii la victoire la ca ñoom mu di loo xamante ni am nañu ko ndax mbirum Covid 19 bi coow la boo xamante ni du ñoom rek ñoo ko wax askan wu bëre yee nañ ci yàbbi euh, comme ni nga xame ni noonu la ko rapport yi fësalee loole di kàddu ki nga xam ni mooy layal Aminata Touré wax ni nag fi mu ne nii xam nañu mbir mi fan la féete ndax seen client dal ñu koy seetal wecc ci tuuma ci euh, li nga xamante ni moom lañ ko fa indee woon mu di Mansour Faye daal di koy porter plainte wax ne da koo tuumaal loole xewoon ni ki tey ji te tribunal bu Ndakaaru nga xamante ne nag Aminata Touré fi mu ne ni set na wecc ci lépp loo xamante ni Mansour Faye mi ngi ko ko doon toppee ci mbirum diffamation xam ne du liir bu du lu xiiban lu ñu war a mën a am yaakaar la moo tax ñu bëgg ñu comprendre bu baax a baax opposition bu bees bii li foog ñu comprendre li ñu bëgg def ñoom li ñuy jéem a def te amuñu ci succès nag ndax sénégalais yi seen xel ak seen seen seen intelligence la ñu ànd dal gi ci réew mi may fàttali heure bii daaw ci ba yan tolof tolof lañ ne woon ak li tubaab naan optimisme bi maanaam yaakaar mi nga xam ne sénégalais yi am nañu ko te mu juddoo ci changement bi nga xam ne moo am le 24 mars muy lu mel ni danoo libéré Sénégal ñoom lañu bëgg mooy fexe ba loolu gaaw a dëñ ñu ànd ci nag ak di wax lu amul ànd ci ak wax ju ñaaw ànd ci ak aussi mooy fexe ba ñoom seeni seeni ñaawteef a ah, nit ñi fàtte ko te loolu kenn mënu koo fàtte kenn mënta fàtte li tolloog soixante xale yu ñàkk seen bakkan xale yooyu seeni wayjur duñ leen ñaanali jabar xale yooyu seeni seeni wayjur duñ leen mës a ñaanali jabar ndax dem nañu ñooñu duñu leen fàtte ba mukk lanu bëgg aussi mooy ñu fàtte le scandale des mille milliards nga xam ne ñu nga doon dee di feebar am ñoo xam ne ñoom seen xel te di bokk ci ñoom ci luubal alal booba la newoon Mansour Faye nee na yaay yooyu daf may porter plainte parce que nee naa ne il a procédé à un carnage financier des fonds Covid leneen loo mën a signaler ci CVM mais li ma wax yéen ñii ñëpp ku ne wax nga ko ay centaine ou Sénégal journaliste wax nañ ko ci seen i plan waaye la ca ëpp solo mooy une vingtaine de députés dañu ko woo def un mémorandum de vingt page ne ko kaay wuy si yow dañ laa war a yóbbu haute cour de justice moom waaw kooku war naa taxaw fii naan ma ngay dem tribunal ak ak yu ni mel moom dafa xamul de gorom newatu fi gorom dem na te fini gorom dem na ñu naan la ab député deux hectares voilà ab ministre quatre hectares am na yoo xam ne yi nag wax dëgg yàlla xam ne ñoo dakkal loolu dal di annule lépp faase lépp ndax suufu Sénégal nag ñoo ko bokk li nga xam ne moom la opposition bu bees bi di jéem mooy ñu faase ci xelu nit ñi di jot am te mu doon ay mesures yu am solo man économiste la inflation ñu nekk Italie ngi may dégg ñu nekk Amérique ñu ngi may dégg ñu nekk France ñu ngi may dégg prix day yokk doo dem ba Amérique ñu ne la prix wàññeeku naa abut wala nga dem France ñu ne la wàññeeku na fii ci Sénégal ba ñu ñëwee ci téeméeri fan yu bees yi wàññi nañ fi njëg kooku dañuy saluer mesure bu am solo boobu nga xam ne vraiment jëm na ci jàppale njaboot gi ak borom kër yi lañu bëgg ñu fàtte te mu am te ñu war koo wax nag ndax politique nag aussi fullaak fayda la wax li nga xam ne mooy lu baax li nga xam ne moom la sa régime def man loolu laa xam ci politique 41 milliards yoo xam ne yii dañu koo fay ñi nga xam ne ñoo ne woon ci mbay mi opérateur agricole yi quarante 41 milliards waaw loolu ci téeméeru téeméeru fan te bor ba doonoonu ati ati ati at te l'essentiel des Sénégalais di dundee mbay kooku il faut le saluer il faut même féliciter vraiment suñu autorités yi ci loolu la ñu bëgg aussi ñu fàtte mooy danu fee bàyyi ay bor pour étudiants yi fayuñ ko ba ñuy dem ku ko fay gouvernement bu bees bii ñoo ko fay mbuurkaat wax naa ko ñu nangu lépp nag delloowaat ko askan wi parce que suufu Sénégal nag ñoo ko bokk war nañoo dem nag ba xam yan critère la ñuy teg en place pour que képp kuy sénégalais vraiment boo sa bu ci sa chance nekkee nga mën koo am ñoo xam dañuy tirer au sort bu ñu définir ay critères yi beral loxo ña nga xam yépp ñu yem ci suufu Sénégal lañu ñu bëgg aussi ñu fàtte ko te ñu war di ko fàttali mooy président Bassirou Diomaye Faye ca tekki samay ndomb tànk ca partie ba mu bokk mu def ko loolu am na solo tëddee njaaxaanaay guvernement bii ñuy wax li tubaab naan dañoo rationaliser ministère yi loolu yëpp pour yàq yaxanal alalu réew mi la yóbbu ko ci priorité yi luñ daan gis bu njëkk gis ay ministre auprès de ministre loolu gis nañ ko fii waaw loolu yëpp jeex pour rationaliser loolu aussi foog ñu koy wax fàttali ko sunu mbokk sénégalais yi ñu xam loolu la ñu